baax a baax tey déglu nañ Moustapha Diop bu pare mais Moustapha Diop dafa nekk euh, journaliste boo xam ne ci dëgg bi lay jaar quoi ci dëgg bi lay jaar dëgg rek lay wax dëgg rek lay wax mën na wax ne fii la far mën wax ne fee la far wute nag euh, yenn journaliste yu bëri yoo xam ne buñ waxee rek nga xam ne ñii fii lañ far mais Moustapha Diop moom ak waa Walfadjri moom gis nañ ne ñoom farul fenn faruñu fenn waaw loolu moom mën nañ leen ko seedal moom waaw donte xeex xeex injustice moom dafa nekk loo xam ne ku koy xeex rek dañuy jàpp ne da nga far quoi mais du loolu moom waaw ñii moom ñoo ngi leen di sant bu baax a baax ku seetaan vidéo bi pare nag abonné nga partagé nga aimé vidéo bi waaw nga abonné activé cloche de notification bi ndax vidéo bu ñu dugal waaw nga mën ko am yaa jëf sama gaay